troisième mandat du fi président Macky Sall moo leen gën a xam fuuf que ni askanu Sénégal du ñu nangu troisième mandat te li ñu mayul président Ablaye Wad en 2012 2011 2012 luñ ko may luñ ko mayul duñ ko may président Macky Sall amaana nag mu jéem ndax comme dafa tooñ ñu ci Sénégal ubi ay front yu baré, baré. baree bëri xelam meuna dem ci jéem a soppi constitution bi wala jéem ci laal wala jéem ko joxe ni ko xalaatee ak ni ko arrangé pour jéem imposer troisième mandat loolu rek mo meuna am loolu nak su amé taxaway bi nga xamné mom lañuy xaar ci jeunesse nationale réew mi ak jeunesse coalition idi 2019 moy dañuy taxaw jamarlo ak mom comme nañ ko defoon ak Ablaye wat ñun ragaluñu kaso ragaluñu policier ragaluñu gendarme bien vrai que dañu respecter suñu institution ak suñu texte yi nga xamné ño ñoo encadré ñi dëkk bi di doxé mais nak constitution bi mo ëpp doolé président Macky Sall constitution Sénégal mo ëpp doolé président Macky Sall kon président Macky Sall li def rek. mooy respecter constitution bi bi nga xam ne moo ko ne ñaari mandat dong la mën a def moom nag su ko interpréter autrement dañuy taxaw wàcce ndaw ñi ci dëkk bi jàmmarloo ak moom ba mu jële fi te bu jaree sax ñu dugg pale génne ko pale incha allahu rabbi loolu la ñuy def